marché Thiaroye dee ngi nii. marché Thiaroye dee ngi nii. waaw <laughs> amuñu maire. génn juuti fay ko xaalis def seen par la ñuy def maire baa ngi nii noo ngi nii mën noo dugg mën noo génn bagage yaa ngi yàqu client yi ñëwul jënd si wu ko amuñu amuñu amuñu fu nu taxaw amuñu fu nu teg bagage lii de mooy marché Thiaroye xool leen ko ñu ngi la ñaan Macky Sall nga dimbali noo gën a gaawee dimbali ñu noo gën a gaawee ci noo dimbali ba alal alal béykat yaa ngi yàqu yi te béykat ñu ngi topp seen xaalis alal yaa ngi yàqu amuñu kun ko jaay jëndkat yi ñëwul kenn ñëwul dimbali leen ñu ci marché Thiaroye bi wala ngeen toxal sax feneen mënu gën a lii wala ngeen wutal beneen maire sax bokk xoolal kii ci hôpital bi la jóge hôpitalu géej malade bi la boot ni di dem ak moom kéemaan la barki seexul xadim tëngéej nañ ñu dimbali xeexuñu xuloowuñ taaluñu pëna waaye nañ ñu dimbali li metti na de taw bi bu fanaanoo nii fan lañ jëm. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di nuyu Bougane Gueye Dany Alaaji Mansour Ndeye Diime Ndaw Birahim Touré ak ñi nekk si plateau bi yëpp waa ONAS la li ñuy jariñ dëkk bi chaque année inondation ONAS soo rombee benn tuyau bu buuse si borom tali bi sax soo leen di woo dinañ jox numéro dinañ la toogloo ay 10 jours 5 jours du ñu ñëw soo waxee ne am na numéro toogal xaar toogal xaar toogal xaar toogal xaar évacuation yi dara dox bi tous doxul eh, normalement avant hivernage bi dinaa ñëw sax curer nettoyer ba mu set mais duñ ko def sax duñ ko def faf ah ñun waa parcelle gisuñu ko boog su dee ñoom fa am su dee beneen localité moo ci am ngeen wax nu ko boog ñen noo si amee ñun moom amuñu ko moom subhanallah ngoog eh, yéen itam def leen ñi ñoom ngeen yónnee ñu seen ay video ci eh, eh, whatsapp bu groupe média médias Mansour dégg nga leen. surtout image bi mujj bi sénégalais lambda ak smartphone am bu dee ba mën a filmer en direct dégâts yi mel ni lu ñu programmé mel ni lu ñu planifié ça prouve que kon dégâts dafa enchaîné. c'est triste dafay dafay dafay sax metti euh, ak vitesse bi nga xam ni ñi war a secourir askan wites bi ñuy daw. dafa yeex lool par rapport ak vitesse bi nga xam ne ñi soxla ndimbal ñu nekk ci position bu doy waar moom la ñu soxla donc il ñu gën a baral jéego yi réalité bi ñun ñëpp ngi gis beneen image bu sax moo su mu di eh, bii suñu équipe yi di ñu wan ah. mu di quartier eh, Daouda Yat bu gis nga ko ndox bi ni mu verte ni mu verte nii léegi xam nga ni ndox bi mënta lañ doon tiit ci rapport waa Agromet bi ci faw mu bàyyi ay jeexeetalu xeetu tawat ñun xam nañ ni ay feetu xeetu feebar ay bilariose xeetu feebar yi nga xam bu njëkk moom la ñuy wax pattes d'éléphant mooy xeetu malade yooyu ñuy wax euh, maladie tropicale négligée ci kaw gi bu mu daan ñi mu daan gën a sonal mooy ñi daan jëfandikoo ndoxum dex yi amoon lii moom la wolof di wax baxaw boo ko naanee li ci nekk ci ay feebar mais li ajiwul naan parce que kenn naanut sax certes ndox yi mais xam nga ni lii faaw mu impacté askan wi maa ngi koy junñi ni rapport boobu bu ñu sukkandiku dong ci wàllu taw bi nga xam ne dina jaaxal nit ñi ak inondation bi mais li muy bàyyiwaat ci tawat moo nar a gën a pire ren est-ce que gis nga ñu def benn campagne de euh, sensibilisation ci wàllu paludisme dégg nga ñu def ay distribution ay moustiquaires parce que ñu ko ndax coronavirus ñu ngi bilan baa ngi yéeg mu ngi wàcc mu ngi yéeg ñu ngi wàcc toujours bëti ñaa ngi foofu inondation bi tey ñëw na dominer coronavirus mais beneen tawat a ñëwaat boo xamante ni day ànd ak ndóol ndóol gu gën metti parce que xam nga ñi yeewoo ci dëkkuwaay yi ñu dem liggéey et puis pur est-ce que xam nga majorité ñu kër yi ñu dëkkoon ñi ëpp ay locataire la ñu woon non seulement kër yi yàqu na loca ki moom këram dafay perte mooy muy bailleur bi mais ku doon luyee fan lay jëlee ci fu muy fay location fan lay jëlee ci lu muy joxe caution au moment où nga xam ne lu waaw location bi ñu fi indi woon euh, dafa mel ni mool ci kenn contrôlé tu ko location yi ñu nekk lay lay lay amee boo dajalee lépp d'emblée da nga est-ce que.